segam ñi nga xam ne ñooy allemand yi ànd ak drogue bi la ñu bàyyi te ñu soxla ñeent ñooñu pour la manifestation de la vérité muy ñaari italien ñaari allemand yi kon vérité fan lay feeñee ñun depuis àddina bi mu sosoog léegi réew boo xam ne day jël doomi réewam jébbal ko beneen réew pour ñu dem àtte ko foofu fan la amee amul fenn bi ñu bàyyee italien yi bi ñu bàyyee allemand yi pour man le procès bi jeexee ndaxte ñooñu dootuñu ñibbisi Allemagne du leen jëbbal Sénégal Italie du leen jëbbal Sénégal c'est fini waaw ñeent ñooñu nga xam ne ñooñu ñoo ànd ak drogue bi mun na am sax ils sont ils sont innocents waaye mun na am tamit ils sont coupables ñeent ñooñu boo leen bàyyee mais yeneen sénégalais yi nga xam ne dañ leen woo juste ne leen allo dañoo am téléphone portable est-ce que ngeen ñu xool loolu rek ñu acca nut ñu jàpp leen foog ñu xam donc l'absurdité de ce dossier-là donc il y a des non-dits d'illustres anonymes waaw xaw ma gone yi amaar ñu doon noos couvre ñu jalgati couvre ñu naan déet ci biir couvre-feu ñuy baal parce que sax mun nga jalgati couvre-feu parce que xëy na sa jabar day wasin mun nga jalgati couvre-feu parce que da nga feebar te loolu sa nekkatul jalgati mais ñu jalgati couvre-feu ñu naan déet ñuy noos ci biir jalgati couvre-feu bi ñu naan déet ñuy noosee ak drogue ñu naan déet ba kenn faatu. dossiers yi du ci mus a wax doo mus a dégg Pape seen bokk APR jiite comité sénégalais des droits de l'homme muy une de l'État war a wax. ak ak ñu sàmm ak ak yelleefu doomu aadama doomu Sénégal à quoi est-ce que nous avons assisté à une vassalisation de toutes les structures devant défendre les droits de l'homme comme le comité en fait sénégalais des droits de l'homme